daa bëgg ñim àndal jóge Canaba nee na kenn ku ne na ci am dara def ko sa poos yaakaar naa ni bu ñu dugg Canaba nee na Maamari moom looloo koy gënal nee bu ñu waxoon ni gaasuwaalu sëñ bi mbaa ataaye sëñ bi mbaa dépaasu daara ja nee na bu ko neexee jël ko waaye ne seeti Amari Ndaak yi toog ñu laaj ko ngir euh, ma Amari Ndaak Seck kenn ku ci ñoom kenn ku ne ci ñoom nee na ci am dara nee na bu kenn gàtt xel nag dafa ni nee na bu kenn gàtt xel rek dafa ni ñu sant Seck rek lay wax nee nitu yàlla ñaari doom la am doomu deret ak doomu ruux. ak doomu ruux. doomu deret. doomu deret. mooy ki mu jur. mooy ki mu jur. kooku ku nee na kooku ku mu jur. kooku ku mu jur. waaye ki ñëw ni aslamtu nafsi. waaye ki ñëw ni aslamtu nafsi. jox ñu jox ko salaatul fatiha. maamam ak ay baayam. mu judd ca. mu ca. aw ca aw ca yoon woowa. kooka kooka. nee na kooka. li ku sant sekk am. li ki sant loola la am kon ñu jógee Canaba ñëpp nee kon ñu jógee Canaba ñëpp rek ñoo ko bokk. Ah, yaakaar na yaakaar na ne nag. moom nee na moom moom tamit addiyaam a am def ko ci biir. <laughs> nee lii daal moo gën a wóor. sëñ Mor Mbaye Cissé. nee na sëñ Mor Mbaye Cissé. ci njaareem. ci njaareem. sëñ Cheikh Tidiane si dafa ñëw si daa ñëw seet si ko. dong yi na dong yi wër ko. ñu lu ñu nee na lu ñu wax ko rek. mu leen eh. mu eh. guy gële ku fa jëkk. guy gële ku fa jëkk. njëkk àjjana. xale yi départ. xale yi départ. Eh, eh, eh. mu leen eh eh. taxaw leen taxaw leen. ñu taxaw ñu taxaw. mu daw romb leen. mu wax dëgg la. mu ni boo demee mu ni mu ni boo demee wax dëgg la. kon naa fa jëkk. man. nee waaye man tam. li yi dajale. li gars yi nañ ko jox amari ndaag. nii nañ jox ma amari jox ko waa Canaba. ba xool. mu toog di xool. defu ci sama ci addiyaam. loolu erreur nee loolu erreur bu rëy la. yàlla yàlla yàlla na yàlla fay leen musuma fàttaliku. nee na musta fàttaliku. fu ñu mbooloo. fu ko dajalee addiya ci mbooloo. ma lekk ko. nee na mu lekk ko. mus ko fàttaliku. nee na ca saasi rek la koy daal di joxe. nee na mi ngi leen di sant bu baax. maa ngi nuyu na mi ngi nuyu sëriñ bi. mi ngi nuyu Baye Ndiawar. mi nga xam ni. mi nga xam ni. moo fi moo fu wutu tey. magam ju baax ja. magam ju baax ja. Baye Issa Diop. Baye Issa fi baayam bu baax ba. Baye Issa wuutu fi baayam bu baax ba. daa ñëw fii. Serigne Thiénaba daa ñëw fii. fekk seen baay ca gott ba. fekk seen baay ca gott ba. ca dënd ba. ca dënd ba. mu di ko fa fekk. mu di ko fa fekk. mu mu di làqatu. jàng alxuraan. jàng di jaamu yàlla. mu jël ijaaza Cheikh Ahmed Tidiane jox ko. mu jël ijaaza Cheikh Ahmed Tidiane jox ko. mbooloo mépp. mbooloo mépp. di sose fii. di sose fii. maa ngi fàttali ko Ba Issa. nee na mi ngi fàttali ko Ba Issa. bi muy jàng fii ci Ndar. bi muy fii ci Ndar. bu fii. bu jógee fii. Eh, fu mu jëm ci soxnaa yi ci Pikine ak. ak ak Njolofeen. dana dana yónnee ci man ndaw. dana yónnee ci sëriñ bi ndaw. mu ñëw ñu bokk mais dama seetlu woon ci lenn. nee daa seetlu woon ci lenn. ci moom ci moom. balaa lekk dara. lekk dara. daggal ma. daggal ko. ni ko lekkal lekkal lekkal. ni ko lekkal lekkal lekkal. ma lekk. nee mu lekk. ba mat juróom-ñaari yoon. ba mat juróom mu door a jël lekk. mu door moom. biñ pare mu ni ma. nee na paree mu ni ko. Ah, reer bii de. mun ko reer bii de. Eh, bu gisee ñi moom may lekk yoon. ñëwuma lekk ba ma juróom-ñaar yoon. sama xel daa dem ci sa maam. nee sama xel daa dem ci sa maam. mu ne sama sama xel daa dem ci sa maam ba mu gàddaayee Canaba Kajoor. bàyyi fa dong yi ak dund ba. bàyyi fa ak ñaari jarbaatam rek. may dàkk sama xel. may dàkk sama xel. coono ba mu jëm. coono ba mu jëm. ak xiif ba mu jëm. ak xiif ba mu jëm. ak ñàkk a lekk ñàkk a naan. ak ñàkk a ak ñàkk naan. googee. googee. ma ah. na mu ne ah. naa jox sëtam bi naa jox sëtam bi mu lekk ba pare. mu lekk ba pare. door a lekk. mag ñi ñoo xóot gis-gis. mag ñi ñoo xóot gis-gis. Euh, man léeg mu dal ma. nee na léeg mu dal ko. tiim ndawal léeg mu tiim ndawal ba yàgg. mu daal di rocc jug. mu daal di rocc jug. sama baay daf ma baayam daa ko wax ni. bi nekk ci daara ji. bi nekkee ci daara ji. jamono yu yàgg. jamono yu yàgg. cox bi dañuy siim. cox bi la ñuy siim. def ci xorom. def ci xorom. lekk ba suur. lekk ba suur. doora mën a toog jàng. doora mën yëpp nee na ñun ñii fi toog kenn mësu ko fee lekk. Mbaye Diagne mas na Mbaye ndax mas nga koo lekk. Mbaye Yade. Mbaye Yade. Mbaye Yade nee na lekk. fii ku ko mas a ñeen ñi toog fii kan moo mas dem ci daara ji ñu sima la jox nga lekk. waa ji neex na de. nee na Sénégal neex na de. kenn Sénégal bu kenn senegal neexul. senegal gii. Sénégal gii. neex na lool. Euh, yàlla nag dana la nee na yàlla dina la fay yow mbay. xam nga gars yi dañoo defe ni jaamu yàlla. nee na yi dañoo defe ni yàlla. jàkka ja ja. derba. derba. loo am def sa bopp. loo am def sa bopp. doo dimbali kenn. doo dimbali doo toogu jox kenn. doo toogu du jaamu yàlla de. nee na loolu du jaamu yàlla de. jaamu yàlla gi. nee mooy. mooy. bàyyi xel jaamu yàlla yi. xel jaamu yàlla yi. loo am bokk ak loo am bokk ñoom. am kilifa. am kilifa. li dal nitu yàlla. li dal nitu yàlla. di ko déglu. di ko déglu. lu soxla nga def ko. lu soxla nga defal ko ko. alxuraan lu wax. nee na alxuraan lu wax. masalul lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yashaa yàlla nee na. nee yàlla ba nga organiser bés bi. nee ba nga organiser bis bi. jël sa wërsëg. jël sa wërsëg. def ci xar yi. def ci xar def ci gileem yi. def ci gileem yi. teeru say gan. teeru say gan. ñu wàcce kaamil. ñu wàcce kaamil. la nga leen jox. la nga leen jox. calculer dërëm yooyu. nee na nga calculer dërëm yooyu. yàlla nee na. yàlla nee na. yàlla tax nga def ko. yàlla tax nga def ko. man maay nee na yàlla nee na man mii maay fay. mi mel ni. mi ngi mel ni. nga jël benn fepp dugub. nga jël benn fepp dugub. ji ko ji ko mu sax. def juróom-ñaari gub. def juróom gub. bu yàlla yemee foofu daanu de. nee na bu yàlla yemee foofu daanu de. moo tax mu dolli ci. moo tax mu dolli ci. wallaahu. wallaahu. yu daaxifu. li man yasaaw li lu ko soob. lu ko soob rek. mu dolli ko ci. mu dolli ko ci. ci aw yiw ci aw yiw. kon yaakaar naa kon yaakaar naa ni. pertement amu ci. tey ku fi ñëw rek. nee tey képp ku fi ñëw rek. yaa ko jox mu naan. yaa ko jox mu naan. yaa lekk. yaa ko jox mu lekk. sukk ci kanamu sëriñ bi. sukk ci kanamu sëriñ bi. di xool di ko xool. at yu bëri. at yu bëri. lu mu xalaat. lu xalaat. loo xalaat ni bëgg na ko. loo xalaat ni bëgg na ko. nga daw uti ko nga daw uti booy génn. booy génn. am na ñu naan rek kii daa dof. am na ñu naan ah kii de daa dof. wallaahi. wallaahi. xaw ma nee na xaw ma dégg nga loolu wala wala déggoo ko. ñi seetaane bëgg jaar. ñi seetaane bëgg a jaar. pour ñu décourager la. pour ñu décourager loola. kii ndax li muy def. kii ndax li muy def. ndax Baye Ndiawar eh, eh, yeeyoo na ko. ndax Baye Ndiawar na ko. est-ce que du xaatim. est-ce que du Baye Ndiawar da ko eh, xaatim. waaye kii moo dof. waaye kii moo dof waay. yàq alalam yàq alalam. waaw yow. waaye yow. bu fekkee bu fekkee. sa wér de matul. sa de matul. sa julli sax mën naa bañ mat. sa julli sax mën naa bañ a mat. sa ñàkk jot. sa ñàkk jot. yàlla foofu wërsëg jox la. yàlla foofu wërsëg jox la. te delloo ko ci yàlla. te delloo ko ci yàlla. perte nga ñaari yoon. nee ñaari yoon nga perte. yenn ñaawteef yi. yenn ñaawteef yi. yi jaam yi def. yi def. lu baax li ngay def. lu baax li ngay def. bu ëppee. su ëppee. ndax bàkkaar wu rëy rëy. ndax bàkkaar wu rëy yàlla tegal la ko fa. yàlla tegal ko fa. soo ko jégaloo mu jégal soo ko jégaloo mu jégal la. benn boo def. benn boo def. mu fay la fukk. mu fay la fukk. man ñi may àndal ñëpp. nee na moom ñi muy àndal ñëpp. xam nañ ni man. xam nañ ni moom. loolu laa gëm. loolu la gëm. man li ma am. nee moom li ma li ci ëpp yàlla la koy. li delloo. moo tax kuy ànd man. moo tax kuy ànd moom. da nga naan damay soppi xaalis. da nga naan sëñ bi day soppi xaalis. nee na déedéet soppiwul xaalis de. lu ma jox nit. nee na lu mu jox nit. la may wax ci sama xolam. mooy yàlla. mooy yàlla. yow laa ko jox yow benn bu ne. benn lay fay. da fukki dërëm. fukki te yàlla du lépp. loo loo boo xëyee loo bëgg am ko. nee boo xëyee loo bëgg am am ko. sama doom ngi nii góor sekk. nee na doom a ngi nii doom a ngi nii sëñ góor a. ma xëy ko. nee na daa xëy ni ko. ñaata million laa waxoon laa soxla ah un million. nee ko un soxla. man nga toogal fii. mun ko toogal fii. ku ko jëlee ba mat ci bis bi. nee na moom moo ko jëli ci bis bi. nee na noonu la yàlla def ak moom. nee na moo tax gërëm na yàlla bu baax. nee moom gërëm na yàlla bu baax a baax. nee li mu ko war a gërëme sax moom da cee lot. waaye nee na borom moom. fi mu fi mu ko teg daal. mooy lum ko jox. mu jox lépp mu joxaal ko lépp. nee na daa xëy. nee daa xëy daaneel bâtiment cinq bi. mu ni waa kër gi. alarba génn leen bâtiment bi dama koy defar te ñaari junni la yor nee na lépp euh, mu lépp ci si loxol sëñ góor mi la jaar nee na fi mu nii mi ngi toll ci treise millions nee ndax masalaa yónni ci kenn la demal mu jox la lu mu def ci bâtiment bi nee na ndax lépp ci portable bi la génne mu jox la lépp xam nga lu doon. lépp xam nga lu mu doon. ah sëñ bi ñaan nga nangu na de. ne ah sëñ bi ñaan nga nangu de. maa la yónnee ah, ma ñaan loo. ndax ne ku mu ñaan loo. boo ma nee weexal. boo ko weexal. laajuma la weexal. mu ne ko laajuma la weexal. damaa ñaan ngir yàlla. damaa loo am jox ma. loo am boo ko defee fukki soo ko defee fukki gor. seen aajo faju. seen aajo faju. mën nañ lay jox rek. lay jox rek. soo ko defee fukki saay-saay seen aajo faju duñ la jox dara yàlla jël lañ la waroon jox ful ko jox la ko looloo tax ab tab yow waxtu yaam du lakk koo gis mu tabe ne ku tabe bu leen ko toppandoo directement àjjana rek ne moom moo wax lool ne ci wax yàlla la ko teg nee kon nag nañ góorgóorlu te am njariñ nu ngoo liggéey nu ngoo jaamu yàlla te bañ a nax suñu bopp da gis ñëw waa ñëw ba cib sëriñ ni koy jébbal naa ci yow wala jël naa salaatu faate ah salaatu faate boo ko jëlee yow xayaam doo lakkale waaye jël salaatu faate yow sànni ko fële. Ah, ñàkk lakk nee yow ah sa ñàkk na. nga ñëw sukk ci sëriñ bi. nee nga ñëw sukk ci sëriñ bi. jébulu jébulu. jox naa la sama bopp àdduna alaaxira. mun ko nangul naa la. maamam sëñ Touba maamam sëñ Touba. la mu طوبى لعبد طوبى لعبد مريد مريد صادق صادق لهم بخدمة أو بحب أو أديات laxasu rek. laxasu rek. garab géema yàlla woon. garab géema yàlla woon. mu koy féexloo ci àjjana. mu koy féexloo ci àjjana. mu tudd Touba. mu tudd Touba. ku fa bëgg a féexlu. ku fa bëgg a féexlu. nii ngay mel. nii ngay mel. ragal yàlla. ragal yàlla. jaamu ko. jaamu ko. laxasu rek. laxasu rek. jëm ci yàlla. jëm ci yàlla. nangoo liggéey. nangoo liggéey. joxe. joxe. nekk ku dëggu. nekk ku dëggu. tey dëggal. tey dëggal. watawaasaw bil xaq. watawaasaw bil sabri. moom la të moom la dëxëñ foofu. moom la dëxëñ naxul kenn. nee am déet. maam Seydi Hadji Malick. mu dajee ak Baye Adi Touré. bi mu mu ko laaj mu tari ko. téere sunna. awal ak saani. awal lu ko ci laaj. mu ko ci tari. mun ko waaw kay. kaay yow soxla. ku mel ni yow soxla. kaay dal ba a ku jàng ba jeex a téere. ko kaay dal baa. ñun gone tey ñun gone tey nag. dañuy jàng ba am fi bag. mbaa certificat. yàlla yombal nga dem keer. yàlla nga jàngi arab ba ñëw. nga jàngi arab ba sa xaftaan. sol sa xaftaan. bu nu tudd. sëriñ bu ah, di dund sunna. wallaahi xamu nee na wallaahi xamu ko. ndax amul seexul murabbi. ndax amul seexul murabbi. ndax gëmul tasawu. ndax gëmul tasawu. Seydina Muhammad Seydina Muhammad ca xaaru Hira la ko yàlla dugal yabal Jibril yabal Jibril mu ñëw poñe xotti dënd bi génne ñaawteef yëpp rëy rëy nay soxar ñàkk nangu dogal yàlla kañaan kañaan añaan iñettati ñàkk njariñ ñàkk gëm kenn te tër kenn te topp kenn nee na lépp yàlla dindi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam door ko ni wa innaka laa xuluqin azimin dëgg dëgg dëgg dëgg yow Seydina Mohamed yaa rafet jikko tagg ko ci ndey ak ak baay <coughs> nee mu ni bu leen nax seen bopp nee kaso bii ceneba ceneba yaa nga ca murid yaa nga ca tijaan tewaan yaa nga ca laayeen yaa nga ca naar yaa nga ca lawbe yaa nga ca tukulóor yaa nga ca séeréer yaa nga ca julit yaa nga ca yéefar yaa nga ca mënu faa jëlee sab taalibe te kenn mënu mënut a fexe ba jëlee sab taalibe bi génne ko fa palais Macky Sall bii palais Macky Sall bii nee boo xëyee demal may naa la fa mu boo xëyee nga dem may la fa mu ne boo àggee li nga xam ne dina doy waar de. Ah, boo fekkee gars yu xonq naan dañu ma fay mayub nekk. ne àjjana. ku la ko yombal. moo la ko xañ. nee buñ jaayante. daje di jaayante. daje di jaayante. tas di jëwante. tas di jëwante. loolu moo bëri. ci tant yi. ak ci mboolo yi. nee na nañ xoolaat bu baax li ñuy def. sëriñ sëriñ bi. bu la wanee lenn lu dul yàlla. su la wanee Motul lu dul yàlla. matul ab sëriñ. matul ab sëriñ. bàyyi ko fi. bàyyi ko fi. seeti ku la woon yàlla. seeti ku la woon yàlla. bàyyi fi sa ndey bàyyi fi sa baay. bàyyi fi sa ndey ak sa baay. wutal sa bopp kilifa. wutal sa bopp kilifa. fa sa baay doon dund. fa sa baay doon dund. naam fay leer. naam fay leer. xeeb ko nga xeeb ko. dem wutal sa bopp kilifa. dem wutal sa kilifa. fa dara ma fa dara mu waabudullaha waabudullaha wala tushriku bihi shay'an wala tushriku bihi shay'an wa bi wali billahi alladi shay'an jaamu yàlla jaamu yàlla ko bokkaale te sa ñaari waajur ni dann sa ñaari waajur buntu boo fëgg mu beeku buntu moom de ñaanu ma audience Macky Sall nee na ñaanul audience Macky Sall ci alalam dara soxlawul ci alalam dara yàlla ba yàlla nëbbu xamuñu nee li fi ne xamuñu ko. Thiénaba xam nga ñoom duñu publicité. waaw ah, nee xam nga ñoom duñ publicité. bu doon tante yeneen photo yaa ngi. nee tante bii bu doon yeneen tante yi kon fii yëpp ay photo lay doon. bu dee murid yi. bu dee murid yi. Ah, seen photo yëpp lañu fi def. bu dee Tiwaawan comme noonu rek. Thiénaba. nee Thiénaba. man ngaa dem fii ba Dakar. ngaa dem fii ba Dakar. doo gis sorof seen Thiénaba. doo gis sorof. doo dégg ci rajo yi. doo dégg ci rajo yi. yi di way Amary Ndack. musiciens yi di way Amary Ndack. wala sëñ Souleymane Seck. wala sëñ Souleymane keneen. ci kër gi ci kër gi. ñu bëri xamuñu canaba. ñu bëri xamuñu canaba. ñi ci seen bàyyi juddoo. ak ñi ci seen bàyyi juddoo. ci jamono bi. ci génération yi jamono yi. ñee dem feneen. ndax ndax. Eh, eh, eh, seen bàyyi du ñu indi ñu gàmmu ne ndax seen waajur yi du ñu indi ñu gàmmu si. ndax nit lu xamul du ko gëm. ndax nit lu mu xamul mënu koo gëm. du ko bëgg. soo génnee. soo génnee. gis gone yi dajaloo. gis gone yi dajaloo. di xaside. di xaside. nga dugg di xaside. nga dugg di xaside. loolu nga xam. mais loolu rek nga xam. <laughs> am déet. nee na wala déet. murid dañoo am fayda de. nee murid dañoo am fayda de. guddi ajuma gune. guddi ajuma gune. Sénégal. Sénégal. koñ boo jaar. koñ boo jaar. da nee na nga dégg seen xasaay di. wala nga dégg rajo Tivaouane. wala nga dégg rajo waa Tivaouane. ñun ñu xomb rek. ñun ñu noppi rek. nee na waaye nag. denc bi yàlla lay mel. denc bi yàlla nag noonu lay man a demee. benn dafa dafa ma nee benn waaye da ko woy. mu nee mu génn waaw. sëñ Souleymane Seck xam na boromam xam na moromam. mu xam na boromam xam na moromam. foofu la la ko tàmbalee. mu jël bande bi. nee mu jël bande bi. indil ma ko. indil ko ko. pour tegal ma ko mu kontaan. nee <laughs> ko mu kontaan. nee bu tegee rek. bande bi day xaar bi tourné ba jeex. mu wëlbati mu wëlbati. dara du génn dara du génn. mooy xam naa ki ko doon mun ko non xam naa ki ko doon enregistré moo daa jum. mën ko am 3000 la mun ko am 3000 la ngi <laughs> dellu bu baaxee rek nga bu baaxee ñëwaat. ñetti yoon mu def ko ñetti yoon. mënut a fexe ba mu sotti. mënut a ko man bëgguma ko ma woy. nee mun ko man bëgguma ko woy. waa canaba yi mu nekkal. xam nañ xam nañ ni. ku bëgg ma jox la sa alal. ku bëgg ma jox la sama alal. taggal yonent bi taggal yonent yàlla Muhammad. Amady Ndaa ngay def jaloore. Amady Ndaa mooy def jaloore. mooy def manoore. moo takk biiram. moo takk biiram. bali di ko dugg bali di ko dugg. ba jàll ba jàll. mu roof fa teen. mu roof fa teen. laxas kaalaam laxas kaalaam. di rayante di rayante. juróom-ñaari at juróom-ñaari at. ci barkeem la ñuy tëddee. ci barkeem la ñuy tëddee. loolu bàyyi ñëw loolu lay am. nee na bu ne Baay Njoor lu defee loolay am. am na ñoo xam ni. duñ fi ko siyaare. duñ fi jaar di ko siyaare. nanguwuñu mbaaxam nanguwuñu ak mbaaxam. xam-xam la yor. te nee na Baay Njoor xam-xam la yor. alxuraan alxuraan. di yàlla di nitu yàlla. nee moom mii xam la ci dara. damay jóge Canaba. nee day jóge Canaba. taal sama oto taal otoom. def dund bu baax def dund bu baax. enveloppe enveloppe. gaare nee gaare nee. wàcc jox ko wàcc jox ko. siyaar ko siyaar mu ñaanal ma. taal sama oto ma taal otoom. maay dawal man mooy dawal ma doo nga ànd. dem sama yoon furr dem yoonam. waaye wàññiwu nee na ah waaye wàññiwu ko dara de. nee na li mu bëgg lépp mi koy am. nee na ku deful dara doo am dara. nee na gaa na dem len gen ramani nitu yalla yi. jox len sen ruu yi. jox sen yi. ñu setal ko wicc. ñu setal ko set. xool yi set. jikko yi rafet. jikko rafet. muy ndabal yàlla. muy ndabal yàlla. yàlla yàkk ci. nga ci grand place bo tok grand place ku bax ku ku ku la romb. nga waxal ko lu bon. nga waxal ko lu bon. Adji Sarr dong la. yoonu kenn newu ca. ay politicien génn. ay génn. wala ñoo xam seen yoon da jënewul. ni Ousmane Sonko nangam. Macky am na ñoo xam ne. ñu ngi dox guddeeg bëccëg. pour lu ñaawal deram. Ousmane Sonko noonu. sëñ Thiénaba noonu. sëñ Souleymane Seck noonu. beneen politicien noonu. keneen noonu. waaye nee na. kenn ku ne. loo wax ci asgor. loo wax ci asgor. nee na bu yomal xiyaame di nga ko waxaat. nee na te koo wax lu ñaaw. salu rafet. salu yàlla da koy jël. yàlla da koy jël jox leen ko. bu dee kolorom nga wax lu ñaaw. tey jullee ko woor. tey jullee ko woor. dañ ko. fa tabaarakallaahu nee mi ngi sant bu baax a baax nee na ñi fi fekk ñëpp nee mi ngi sant njabootam gi ma àndal boo gisee mu ànd ak doomam yi ànd ak mbokkam yi ànd ak waa kër yonent bi daa bëgg bàyyi isaa xolam sedd xolam sedd guy mag ñu baax ñi fexeel ba seen xol sedd ci yow. fexeel ba seen xol sedd ci yow. bu seen xol sedd bu seen seddee rek. yàlla yàlla xamal ni xamal ni. jëppuwu la gaayam yi. gaayam yi. kuy seral seen xol. seen xol. yàlla dina sera seen xol. nañ fexe ba ngoy ci lool. nee na xoolal dëkk bi ni mu toll. xool li tund bi toll. Souleymane mënu nga firi loolu nee na nee na ñu néew ci jaamu yàlla yi nee na jaamu yàlla yi ñu ci néew ñooy sant suñ suñ borom nee yàlla moo ne sama jaam yi ñi ma ciy sant ñi néew la ak lim defal jaam yi nee loolu xam nga ni ñàkk xam la kon nitu yàlla ñu ne nañ ko siyaara wàcc fa nangam kaamil nga dëkk ci dëkk bi doo bokk ci kaa bi de doo saraxe doo siyaar kooka naan jëru ko ki koy def daa dof bandi la nañ moytu ne soo demee kat yàlla ñun ñi heure bi nelawuñ toog ci tànt bi ñun ñi fi toog ñëpp bu neexee yàlla mu jéggal mu ñu am ñu am loo xam ni ñi ñëwul duñ ko am am na ñoo xam ni nelaw moo tee ñëw am na ñoo xam ni contraté ñëw am na ñoo xam ni ñàkk chance moo tax ñëwuñu nee na loolu mooy am nee na xool fañ jóge Thiénaba ñii xam nañ ko gis ko ci tànt guddi mu toog yombul de nee na dina ko def waaye bariwul ci tànt boo xam ni na ci tànt boo xam ne daal yàlla rek tax daal la koy def waaye nee na yenn tànt kii yi moom du ko def nee mu naan sombeem nelaw rek waaye nee na tànt dund ne ci ñu dañ koy dañ fay ni mu bëgg ak li muy xam moo tax mu ne alxames ji guddi gi ajuma ji ne lo nuy bàyyi bàyyi maam Njawar ni mu tànn noon gars yi samedi lañuy jël ak dimanche de ngir nit ñi am jot ma a ñëw moom mu tànn alxames ak ajuma ne yéen ñi fi teew ñëpp ak ñi ñëw jàng alxuraan ba dem ne seen sens mooy mooy alxuraan bi neen seen sens tànn bokku ci mais sunu sens la ñun bu nga xamoon li ci am ak lim gis fii dañuy jóg fecc feccal yàlla ramal yàlla sukkal yàlla te xam ni yàlla defal nañu fi loxo ni tabarakallahu moom moo la wax loolu nee sëñ Ibrahima Seck bi fi bay bàyyi maam maam ji bi sekk jóge alaaji xalifa gay la jox jang ya. ya ak sa bàyyi seenu ne bam ñewé ba ci <clears throat> suba ga mu ni cey seen jibi sekk nee na mu ni cey jibi seen jibi sek jinne mi sax ñew na ci jang ne da ngeen yaakaar fi dara neew ne eh koy ku wedd rek pap nee na nga kay boy de nee na nga tok ci buntu keer gi rek ne mu boo toogee ci buntu kër gi léegi moo la seen taalibe jinne nga xam ne bu ñu leen soxlaa liggéeyloo bàyyi saa ñoom ak bàyyi njawar ñoom am na loolu bu ñu ko bëggee taalibe jinne yi ñoo koy def bu nit ñi gàntoo nitu yàlla bu ne am nga lool nee na Alpha dafa ñëw daara nee daa ñëw daara ja ànd ak baayam baay ngom ànd ak ko ni ko baay ngom baay Souleymane mii maa ko bëgg ko bëgg waaye xamu leen ko waaye xamu leen ko de ne taalibe jinne maama bi gis nga garab gee daanu ci lañu dëkkoon ci lañu dëkkoon léegi ñu ngi ci alom gi nee ñu ngi ci alom gi léegi mun ko bàyyi ngoom ndax xam nga lu mu tudd kilifa gi maa kooni la la tudd nee na doomi alpha gone gu tuuti la mun ko ah man de gisuma leen nee na ay maakoone ay jaakoone yee daal sëñ bi nee mu ni ko moom gisuma leen nee na moom gis na mi ngi leen gis moom xale bi tey nee na gëm na ni wax na dëgg ndax nee bi mu sanc foofu <coughs> saxaar bii dem Mali moo départ ak ay wogom ñu koy gis moo faal ma fa ne mu daw ba tolloog ñun seey def liir bu jooyee euh, bët yi sànni safara mu ni faal jugal dandu am na góor goo xam benn bët la yor nii nii lay jóge romb garab googu bu ko defee bu tooloo ñun mu ni faal noddal mu de mu mu dem dugg ci génn guy guy gën a jëkk a dagg law bi ko doon dagg bàyyi la ci saw sama sëfër bi la ci saw saw sëfëram bi moo leen boole woon bi mu ko daggee ba mu jeex mu ni xaq lànk bañ a àgg suuf law bi daa yuxu fekk mi ngi cene ba ñu woo ko ni ko gaawal gaaw mu daw ñëw bu mu ñëwee mun ko lu mu doon mun ko sëñ bi maa ngi dee guy gaa sama kaw te ma nga fële mu wër guy gi jàng ayatu kursi juróom-ñaari yoon bi muy àggale mu ni xàq daanu ah, muy dem ci góor gi ci guy gi nga xam daa saxoog olom gi fa waa dëkk bi daa jule it ma dagg guy gi ne bu ko defee ñii nuroog ay dof kanam léegi kenn ñëw fii toog fee nee na comme moom mi ngi toog ni ci fauteuil bi moom mu yor ay sagar am na lu muy def eh, rek dañ naan ko eh jugal fii ne pourtant mën naa ne sax mu ngi xut bu saman de ne alxuraan wax na ko de waxabudullaha wala tusriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yataama wal masakin wa min sabil mooy ñi nga xam ne dañuy dox ci yoonu yàlla ak sa bindaan sa ndey seeni bokk ñépp nga fonk leen borom sagar yi taraf wuñ nañ leen di fonk bu ñëwee ci yow jox leen ñu lekk jox leen ñu naan nee ñu ngi leen di sant bu baax ngeen dégg lu baax li mu wax nañ dékk yàlla suñu bopp nañ jaamu yàlla te yàlla tax nañ ragal yàlla te yàlla tax nañu wóolu nit yàlla te yàlla tax nañu rafetal te yàlla tax nañ bëggante nañ wóolante kër bu ko def ña ko seq jàmm rek la ñu dëkk bu ko def ña ko def Jam la Politik. am. politique. cinq. fois une fois. une fois une fois. nga defaat beneen bu jëlee ñett salaat faati nga teg juróomi astafurlah ñaari fanweer astafurlah juróom-ñett fukk ñaar téeméer ñett téeméer ñeent téeméer juróom-ñeent téeméer lim bu man nga def ñett salaat faati nga tëj boo mun salaat faati defal salaat ala nabi nga tëj nee ko saxoo ba déwén boo ko di nga wax dara doo sol mu mu sagare doo ñàkk kàttan doo ñàkk di nga am ay soxna yu baax am ay doom yu baax <laughs> nee na waaye saa bi <laughs> <laughs>

guerre mondiale dina am. te fu mu am. ceeb kenn du ko talat. aña ceebu jën. Ah, déedéet. moom kay dañuy làqatu ci guerre. di rëbb ci jaari. di rëbb ci jaari. mën naa am ñu matt la. mën naa ñu matt la. nga faf dee. neen ñu ñaan caaxaanuma de ñu ñaan jàmm ci àdduna bépp yéen a ñëpp jàmm yéen ko suñu bopp yéen ko suñu bopp yéen ko suñu réew yàlla bu fi guerre guerre mondiale yàlla bu mu am guerre mondiale yàlla bu mu am ñoom ñee xeex yàlla na fay ñoom ñee di xeex yàlla na fay ñu dellu ci jàmm ak jubóo te bañ ak Sénégal non ne man mom guerre mom bëgguma ko. damaa bëri soxla. dama bari soxla. sama jumaa yi sama daara yi. jumaa yi ak daara yi. gone jang jàng jang bu guerre amé bu guerre do do ko tal ñu yalla mu musal ci guerre. fu ngeen daje. fu ngeen daje. jàpp leen ba sell. japp leen ba sel bañ a yàkkamti. bañ a yàkkamti bu ngeen jullee. bu ngeen julé def ya salam def ya salam téeméer téeméer. ak fuk ak fuk ak ben ak ben jàmm ju jógee ci borom bi. jàmm gu jógee ci borom bi. day ànd ak kaaraange. day ànd ak kaaraange. li ñu des nag. li ñu des nag. sëñ Thiénaba bàyyi ko. wala maa waxoon naa li far bi. alhamdulilah subaa ngoon. subaa ngoon. fu ngeen jullee dee leen ko def. fu ngeen jullee rek dee leen ko def. wala maa waxoon naa li xar bi. mbooloo mi ne at faaha laa. mbooloo mi ne at faaha laa. saa yu aw xay naree tàkk. saa bu ay aw ay naree du tàkk. yàlla na nga ko fay. yàlla na nga ko fay. sunu maam loola fi bàyyi. Mm-hmm. bu julee timis ak bu julee gee ak bu ñu julee gee ak bu julee fajar ak bu julee fajar. bu ko nee diggante yi. bu ko defee diggante yi. guddi gi bu yam bëccëg bi jàmm bëccëg bi jàmm. waaw yéen a ngi koy def waa nga rek ñu mos mos ngeen kon ngeen Yeah, Era para esse pagador pedindo كل ملكية